boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo saxaftali rabbal bariyatil badan alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare di la jottali sa nuyoo xarit sa nuyoo mbokk cheikh al islam cheikh Mouhamadul Mahi saaxibul fay xalifa saaxibul faydati tijaani yónni nañu fii ñu ñëw fii tey ci bés bu màgg bi nga xam ne bési lislaam la bési Sénégal la ànd ak suñ baay cheikh Mouhamadul Bachir nga xam ne doom la ci baay Mahmoud baay Mahmoud ak baay ñoo bokk ndey ak baay ñu ànd ak doomam cheikh Abdallahi ànd ak beneen doomam cheikh Baay Alxaaji ànd ak cheikh Mouhamadul Makki doomam ak man mii di wax ak yow di Serigne Aliou Niass. ak mboolem muqaddam yi nga xam ne ñi ngi ànd ak ñoom ñëw tey sëriñ bi nee na mi ngi bég ci bés bi mu ngi la ci ndokkeel mi ngi la ci ñaanal yàlla mi ngi wax sa taxawaay ci lislaam sa taxawaay ci réew mi sa taxawaay ci njaboot gi yëpp mi ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax nee na moom su amoon kàttan ak wér moom moo fi ñëwal boppam waaye mi ngi lay biral ne bés bi bés bu ko ñor la ba tax na mi ngi ñaan yàlla ñi nga xam ne ñi ngi jugee fu nekk ci àddina bi di fi ñëw yàlla indi leen ci jàmm delloo leen ci jàmm nee na relation Touba ak waa Medina moom du ci sori ndax yow li nga ci xam ak moom li mu ci xam àddina yëpp seede nañ ko muy diggante boo xam ne diggante bu rafet la ca Serigne Modou Moustapha ba ci yow mii nga xam ne tey sa wayjur Kaolack la nekkoon ak suñu maam Cheikh Ibrahim Niass muy ñaari góor yàlla yoo xam ne liggéey nañ fa liggéey bu am solo Serigne mi ngi lay seedal nañ njaboot gi nga xam ne ñoo nekk foofu te nekk ci sa ron rafetal nañ digganteem ak moom mu ngi lay seddal nañ njaboot gi nga xam ne am nañ ko fii itam ci tund wi wax nañ sa taxawaay ci ñoom kon mu ngi lay gërëm bu baax di la ñaanal yàlla di ñaan yàlla nit ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm te lépp luñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu di la ñaanal nga yàgg fi lool te ànd ak wér ndax sa yàgg fi baax na ci Sénégal baax na ci réew mi baax na ci umma bi kàddu yi nga xam ne moom lañu sëriñ bi sawoon pour ñu wax ko lu ci manqué rek ci ñun la waaye moom la mu wax gën naa rafet lii jërëjëf Mbacke. alhamdulilah dégg nañ kàddu yi bu baax a baax a nañ ko bu baax a baax dégg nañ ko bu baax jërëjëf ñoo ngi sant bu baax ñu ngeen seeral nu sëñ ngeen nu ko nuyul seeral nu ko ne ko ne ko xam nañ taxawaayam bu baax xam nañ taxawaayam bu baax. seen ka seen jéego yi ak jataay bi sa kàddu yi gën nañoo leeral lépp waaw liñ ci xamoon xamoon nañ lu doy sëkk nañ xamoon nañ taxawaayam waaye gën nañoo gën nañu gën gën gën leeral seen jataay bi seen jéego yi ak jataay bi ak kàddu yi gën nañoo leeral lu ñu xamoon ci moom waaw ak lu ñu gën nañoo gën na gën gën dool soññ itam ci lu ñu doon sam liggéeyal lislaam ci suñ sama suñ digganteeg gën a gën a ci fas gën a gën gën a liggéey lislaam ci yéen gën a gën a sàmm lislaam suñu diggante yéen na ngeen nu ko jottalil kàddu yooyu eh, waxal na ko loolu ne ko loolu rek moo ko fi nekk ne ko noo noo ngi fi nekk leen fi waaw fi nekk leen fi eh, fas yéene ànd ci ci ci lépp loo xam ne mooy mooy sàmm mooy lislaam mooy mooy dundal mooy sàmm lislaam waaw da ngeen ni ko waxal kàddu yooyu gannaaw bu ngeen ni ko seerale santal ni ko gërëmal ni ko wax ci taxawaayam jërë ngeen jëf yéen ñu ngi leen di sant leen gërëm bu baax ñi nga xam ne yéen a <laughs> doxal tànk yooyu dogal ko jotaayam bi ñoo leen di sant leen gërëm bu baax leen ñaanal bu baax a baax moom sàmm gën leen a sàmm da ngeen leen a aar da ngeen leen a kattanal da ngeen yokk wér gi yokk fan bi da ngeen gën a mën a liggéeyal islam fas ñu fas ko ànd rek ak yéen incha allah tubarkalla صحبت لي رب البرية البدن boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo